ayca mbër maa ngoogu di waaj a génn mbër maa ngoogu gars yi di ko préparé muy waaj a génn wala ma yóbbu ko sama bi ne jëy jëy war maa ngi googu waaja génn Banaar lii baa ngoog di waaja génn fas mbaa baa ngoogu di waaja génn Mbër maa ngoog di waaj a may ma may ma may ma damay jël may ma may ma damay jël yéen ñi sol si la yéen ay maa ngi ma faal wéy ma damay jël damay jël. faale oh man damay jël jàppal sama ginnaaw sama ginnaaw damay jël faal. waaw waaw waaw waaw sotti baax na baax na baax na sotti sotti waaw baax na acca baax na acca bambara rek bambara ngi noonu day jeex day jeex. Bamba yaa ngi noonu di waaj. Ousmane da koy xaaj. waaw bu ngeen ma mayoon ma jël ah normal Pall. Pall Pall dimbale ma ma am image normal normal quoi. maa ngi noonu Let's go. Mbaa ngi noonu Mbaa ngi noonu Mbaa ngi noonu ah supporter yi am koy waaw am seen yaa ngi noonu may ko may ko may ko tuuti faal Pape Mbaye ngi noonu Pape Mbaye ngi noonu ñu ngi koy wërale ginaar gi Pape Mbaye Pamba yi ngi noonu. Pamba yi nii nii nank rek nank nank nank Bamba ngi noonu Bamba ngi noonu waaw waaw waaw waaw Pamba yi ngi noonu. Pamba yi ngi noonu. le retour de Pambaay. allez passe passe waaw waaw waaw waaw. waaw ko bàyyi bàyyi pousse

Pambayi noonu pambayi noonu booy dañu simal ma ne ko booy dañu simal